mbokk yi sant leen gërëm leen ci seen ànd ak ñun dimanche bu jot ci seen émission gox bi tey ñu am gan mu di Samba Bathily Diallo di maire bu commune bu Wakam monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci plateau bi. maa di fay. Mhm. di di nuyu seen fidèles auditeurs yu. Rewmi FM yëpp. Mhm. tey ñaan yàlla jàmm ci Sénégal. Mhm. monsieur le maire merci beaucoup ginnaaw ba ñu nangulee eh, invitation bi alors xam nañu période bi yombul mais dañuy dugg rek xuus ci waxtaan bi monsieur tey mën nga ñu defal le point ci coronavirus bi sa sa commune. waaw su ma ko bëggee def si nu gàtt damay wax ne. Mhm. ñun ci commune yu ëpp ay kaala ñu bokk. ñaata. ñu ngi si cas mm-hmm. yoo xamante ne depuis le début mm-hmm. on a trente quatre guéris wax mm-hmm. benn neuf sous traitement jusqu'à hier ba dem ba yéen ci matuwaay yi ba tey waaw xam nga ñun moom defe naa ñoo jëkk jël ay matuwaay mais xam nga suñu zone bële ku xamul da defe ne village la or que ay quartier chic la yu am solo. waaw xool ñi ëpp ñi am koom yëpp. foofu mhm. lañ ñëw dëkk si. Mhm. moo tax bi yëf yi tàmbalee rek juróom-ñeent lañ ci jëkk am mais mhm. ay cas importé la woon. ay nit a indi. yu ko indi te ni ñu dëkkee ñoom duñ ko amul woon risque. moo tax communiqué wu ñu sax woon. ndax ñooñu boobu ñu ngi seen seen seen village lañ nekk. seen kër yi amul nit. bëriwul nit donc ñooñu présenté wu ñu woon benn vraiment danger. ba bii ñu amee cas boo xam ne si cité yi la mais ancienne cité yi mm-hmm. koo xamante ne def ko si am mais xam mm-hmm. nga ancienne cité yi moo mm-hmm. village bi ñoo xaw a yem léegi sax dugg-dugg yi dafa bëri xamante bi bëri foofu nag la yëf yi explosé ba mu explosé nga jël ci ba ñu egg trente deux mu nekk tey boo xam ne benn cas laa wax de mu indi trente deux cas mu nekk lu yéeme ku contaminé sept këram. sept yooyu mu contaminé dem con contaminé onze si biti demaat contaminé waat deux boo defee lépp su ma juumul. dafay nekk trente deux boo si dolli neuf yële. donc ñu am accalmie bu trois semaines parce que mën nga fàggu ba sa biir dëkk du fa am mais yi. jóge la foo xam ne doo ko xam sax xool dama ne woon neuf cas importé ñu parce que wakaam fooy dugg da ngay raxasu fépp lañ def dispositif lavage ñu ngi sant yàlla mesure bu ñu jël après dañuy gis ñeneen di si roy bi ñuy jël dispositif de lavage de mains parce que ñun dañ ne village dafa am village ci biir commune bi te village bi dëkkuwaay yi ñu ñuy am feebar bi foofu kon si gi ñu nekk cité yi la la la yëf tas mhm. gën bu fekkente ne ci biir village bi la xam nga loolu moom xalaat ka sax. Mm-hmm. lu doy waar lay doon lu doy waar lay doon mënuñu sax toog di xalaat. Mm-hmm. mu dugg ci ci ci biir village bi donc. Mm-hmm. ñu am accalmie trois semaines. kenn déggul kaaw ak am. amul amul <laughs> ñun dañ koy suivre. ba mu des ñu quatre yu nekk hôpital te quatre yooyu suñu jëkkër ñi lañ. parce que ay mag daf si amoon nax yooyu. waaw bi dafay heureusement plus de peur que de mal. Mhm. ñooñu sax mu jëlee ñu weer. Mhm. ñu am koo xam ne seen seen côté yii lay liggéey ci fàtt mhm. fut mu contacté fa virus bi. ok indi ko fa daal. amaat keneen ku ko fa contacté waat. kenn ñett ñoo xam ne daal seen liggéeyukaay lañ lañ ko jëlee. ñooñu ñoo ko tas am na xoole benn kër boo xam ne su ma juumul quinze à dix sept personnes si biir nga gis kon suñ suñ dëkkuwaay yi te si cité yi la mais kër gi. Mhm. kër gu populaire la. ba pare kër gi moo bëri nit kenn moo ko fa am am na jour boo xam ne euh, district ouest bi yëpp amul benn kaa ñun ñoo am dix cas dix cas yëpp même famille bi la moo tax ñuy wax ndaw yi. Mhm. kuñ ci wax toogal nga bañ xoolal kooku tey coono bi mu teg famiyam kër ñëpp lañ yóbbu. kër lëmb. contact yi koñ bi presque ñi doon fréquenté foofu yëpp ñu jël yóbbu ndax ay cas contact la. Mhm. si xam tayu ko mais ñii xam ku ko dem léegi nga tay ko parce que kooku da doon daan dooleem. Mhm. léegi ku dem nga tay ko ñu lay wax toogal sa kër tooguloo ngay luñ wax doo faale nit yi ba nga indi ko fa nga dugal ko sa biir kër fekk màgget gu fa ne amoon yeneen i ñu jël ko yóbbu ko mu dee est-ce que sa conscience yow dina tax. mu nekk lu doy waar ah. yow xam nga man na la bañ a def dara ndax ndaw nga. man mhm. nga si génn nga dem nga dugal ko sa kër boo fekkee màgget wala ñu am ay feebar ku am insuffisance rénale. Mhm. wala ku am problème tension mhm. wala ku am feebar boo xam ne daal. dina mën a sonal nit. dina mën nit waaw boo ko fa defee ne nga rey sa baay rey sa ndey na. xam nga loolu doy na waar trop. nga xoolal kër googu ñëpp dem. mais mais euh, tey. Mm-hmm. fu situation bi toll. 67 sensibilisation bi tey moom lañ gën a mën a wax wax nga jël ngeen ay mesures barrières ba commune ba ku fay dugg dinga nga raxas ba set ak masque bi mel na ni digle woon nga fi kuy dugg ci biir commune Wakaam faaw nga sol masque mel na ni initiative yaa ngi ci. waaw moom laa la lu ñuy def rek ñu ngi sant yàlla dañ ñu si fekk si. Mm-hmm. xam nga sëñ Wakaam cent cinquante mille habitants du caaxaan de. déedéet du caaxaan mos. am na département yoo xam ne ñoo leen population. fuuf. ñu waxoon dañuy def. Mhm. trois cent mille masques. bien sûr cinquante mille lañ njëkk a def. Mhm. ñu commencé ci village bi parce que gis nga li ma sànq village bi moom. Mhm. bu mu fa dugg. ndax xam nañ niñ dëkkee. buñ ñu confiné woon sax village bi kenn mënu leen confiné ndax benn ëtt bu mag la. kër yëpp buñ ne kër par exemple Njaayeen. famille Njaay bi la mhm. ñëpp fa lañ dëkk benn ëtt bu mag la mhm. kër yi ku nekk sa kër ñii étage lañ def ñii lii nii mais moo mën a toog si sa kaw ëtt bi kenn du tere nit yi dox ils vont vivre comme niñ daa vivre rek ku daa liggéey moo dul liggéey rek mhm. ku daa dem géej doo dem géej donc gis nga ne noonu noonu mel kenn bu ko amee bu ñu sàgganee tuuti ñëpp ñoo koy am moo tax foofu la ñu commencé dem nag ci extension bi fu mel ni cité avion kenn mënu ko bàyyi ginnaaw boo ko bàyyi ginnaaw da ngay def euh, euh, musiba aussi <laughs> moo tax foofu damay profité di sant les jeunes de la cité avion <laughs> ñoo regroupé wu ñoo regroupé wu ci benn cercle hmm. fu dëgg yàlla ñoom ñoo ngi def liggéey bu mucc ayib mucc ayib ñun matériel bu ñu leen jox hmm. ñoom def nañ ci trois quatre fois plus seen matériel. Mhm. di gërëm seen yaay yi. Mhm. di gërëm seen jigéen ñi. Mhm. seen natt yi ñoom ñooy ñooy ñëw di joxe ay ay ay ay ay vax. pour ñu di si ñaw masque yi pour ñu si ñaw masque yi seen ma maasu vax yeex yooyu. ñooy ñëw di joxe ay vax di si def seen xaalis. pour ñu ñu def kii donc ñoom. il fallait ñu jàppale leen à peu près mais loolu day leen fekk ñoom. ñu ngi si mais balaa loolu xam nga ñun. Mhm. marché yi ngay gis nii. waaw ñaar ngeen marché yu mag ngeen am foofu. ñun boobu fekk na équipé nañ suñu marché yi ma masque kenn du jaay te. takkoo masque takkoo masque kenn du dugg si marché bi te takkoo masque. Mhm. baa bëriwul ay porte mais yaa yaa yaa yaa quelques portes mais fépp lañ encerclé. Mhm. def fa dispositif de lavage bi ak masque yi. 16 heures ñun avant président di def son discours. le 2. Mhm. Euh, euh, kii balaa moo def son discours ñun fekk na. ku laa euh, jël ngeen dogal yàgg doon nañ dogalu 16 heures ñu ñu ñu tëj suñu marché. Mhm. gis nga avant ministre de l' intérieur di jël dogal. Mhm. pour di tëj marché yi samedi dimanche ñun dimanche dañ doon tëj suñu marché. loolu aussi dama siy sant commerçant yi bu baax baax a baax a baax. bokk nañ ci. waaw parce que bokk nañ ci xeex bi. joxe nañ seen alal. jënd ay produits jox ñu. te am nañu nangu nañ. que ni feebar am. xam nga mosoo dégg tiraillement entre commune bi ba ak kii. te xoolal mesure yu metti lañ teg seen kaw. Mhm. tëj nañ fi marché bi. Mhm. ay fan. may leeral tamit foofu. Mhm. ñu bëri xamuñu tey mën naa ko wax. mais daf fekkoon ci marché bi am ka mais ce que loolu doo ko waxee gis nga bomb bi muy def loolu. ñu bëri dinañ voilà beneen. te da ngay yàqa. publicité marché boobu. ok donc te boo ko yëgee tey. mënoo ko bàyyi suba mu tijji. déedéet matuwaay. ndax jël nañ ci marché bi ñoo xam ne ay cas ay contact lañ. <laughs> moo tax boo nekkee njiit danga war gaaw di jël décision. <laughs> te booy jël décision décision bi dafa war a doon bu bu baax. <laughs> si saa si contacté naa leen ndax waxante ak ñoom ne leen nag suba mënuñu tijji. mel na ni décision bi dafa ñëw fekk si. décision bi nga xam ne jël nga ko gouvernement bi dafa ñëw fekk si si sa décision. waa xam nga bi may wax ne ñun am nañu généraliser masque yi kenn waxagu ko. Mhm. bi ñuy tëj marché yi kenn tëjagul. Mhm. bi ñu def dispositif de lavage. Mhm. ci biir commune bi yëpp. kenn defagu ko woon. bi ñu commencé it di def sensibilisation kenn defu ko woon. ndax ñun day am benn club médical mooy ndaw yi seen xam-xam màcc ci santé. ñoo regroupé wu tudd club médical de Wakam. Mm-hmm. ñoom ñooy cellule d' alerte bi. Mm-hmm. ñoom ñoom ñoom ñooñu ñooñu ñoom ñoom la ñuy liggéeyal ñoo ñuy xelal nag. Mm-hmm. kon seen xalaat baax na ndax feebar bi muy doog a xam man du ma technicien de santé. bi sûr lii presse bi wax rek laay laay xool. ci su sukkandiku internet bi mais ñoom. teel teel teel dañuy taxaw. wa di wax lu ñuy def ba tey nag ñoom ñoo ñooy suñuy conseiller si si wàllu santé. loolu dafa am solo gis nga ñoom ñoo nekk premier front xam nga tey mën naa la wax ne. Mhm. set personne si suñu première barrage bi. Mhm. dañ demoon nu mu tuddati euh, euh, isolement. ok mooy club médical bi am kenn ku ko si amoon. Mhm. indi ko. parce que ñoo dox diggante. population bi feebar bi. te am na si koo xam ne bu ko amoon man. isolement laa jëm. man damay doon contact gu kooku wala damay doon contact gu club médical bi sax laay wax ndax maa ñoo may toog ñooy réunion mu am ci koo xamante ne chaque jour dañuy gisante chaque jour kon ko club médic heureusement 17 yëpp def mm. nañ seen 14 jours. Mm-hmm. génnaat mais kenn amu ko si. ñu ñëw négatif ñëw mm-hmm. négatif. mais xoolal rek bu ko si kenn amoon. musiba man ku ko si mënoon am si ñoom rek. kontagam mm. laay doon. parce que ñoom ñoo doon dugg di. sensibiliser. Mhm. dañ joxe prospectus si mhm. ba tey. Mhm. fu ñuy joxe masques yi day am benn médecin bu ànd ak ñun. médecin boobu mooy expliquer fu ñu dem. nan lañ parce que masques yi dañu am nuñ ñu nuñ koy fóote. liy jëm daal ci feebar bi aussi. lépp moom moo ndax moom moom ñoom ñoo ñu gën a xam. donc su ñu defee quatre groupes dañuy mettre quatre groupes suñu disposition. tey dem nañ ba. dañu am cellule de consulte xaw ma nu ñu ko tuddee. cellule de consultation de et de conseil. en ligne. dañu bëgg ku am tuuti loo loo loo. loo jàmbat mhm. bul déplacé wu. parce que bëgguñu aussi suñu personnel médical bi ñu contaminé la. Mhm. da toog sa kër. Mhm. woote ñu waxaay boo leen oowee. man ku ma oo damay damay oo dama leen di oo. ñoom ñu oo la. ngeen wax am naa si bu yàggul benn cas. une dame vraiment très responsable. bi mu demee ba gis ne moom tiit na. mu oo ma. sama ami la si Facebook bi. Mhm. xamu sax turam daf ma envoyé rek message ne ma monsieur le maire. Mhm. je présente tous les symptômes. Mhm. yu yu yu feebar bi. ma xool ma ne envoyé ma sa numéro mu envoyé ma numéro ma jël ko oo ko. mu ne ma bopp bi day metti articulation yi dafay bañ. yaram bi dafa tàng. jëkkoon na ki ñu jox ko. garabu bopp bi metti mu naan ko. Mhm. mais dañul ma ne ko bul génn. ndax man nga am am nga foo isolé mu ne amu ko mu ngi dëkk ci ci biir village village bi. Mhm. ba pare ne ma sama yaay dafa am jabet looloo ma tiital. Hmm. est yaa ngi mhm. ma ne ko fexeel nga am rek foo isolé wu en attendant. je te reviens. donc noonu ñu téléphonante ñoom ñu oo ko. bu ko ooyee bi ñu waxee ñu xam ne baisse de tension la am. mais déplacé wu. Mhm. dem parce que ñun am nañ mata ñun ñun lépp lañ yor. ñu mhm. nga suñu combinaison suñu waree intervenir. ñu mhm. nga suñu ambulance bu ñu waree intervenir duñu xaar. da ngeen di intervenir. dañu intervenir. parce que ku dañu tabax fii ñuy defee. fi ñuy isolé nit yi. ku amax ku amul ñun tabax nañ ko ba pare. ok te fa demagum pour waa Wakaam yi may déglu. ñu isolé wu foofu ak bëri. te kenn xamul. da koy def si sutura. yàlla dimbali ñu ku ko am duggagul foofu. ok mais ku ñu jàppal ne dañ ku ñu xalaat rek fa lañ lay isolé en attendant ñu ñëw ñu jël. balaa dara xew. kooku bu fekkoonte ne bi club médical bi. Mhm. waxtaanee moom dafa présenter signe mhm. kon dañ koy jël ci guddi gi parce que avertiroon naa gendarmerie ba pare. pour que moom parce que do diggante boobu jaru nga koy dugal si si si si ambulance. ambulance suba nga koy kii. c'était ñu koy gis te jëlse bi nit ñi dañuy xam. Hmm. te comme sorewul woon dañuy dafa naroon ndox ok ñu daje si kii bi donc jëloon nañ yëpp disposition. ak gendarmerie pour hmm. kenn bañ ko. Hmm. kii te man dama naroon génn. donc noonu bëri na bëri na kaa yu mel noonu. yoo xam ne def nañ ko si biir foofu mais lépp si sutura la. parce que léegi bëggatuma sax. en tout cas bu dee ministère man mënuma si dara. mais ñun kaa yu ñu am. yu ñu war a isolé. Mhm. yéen koy def. ñu ngi koy def te ambulance bi dafay sori. bu dul loolu. Mhm. léegi nit ñi seen balcon yi la ñuy taxaw. Mhm. di xool te sutura. dafa baax dafa baax. mu dool la ko si kaa yoo xam ne. ñu jóge à l' intérieur du du Sénégal di ñëw ñun cas buñ ci am isolé nañ la. teg ko si saa si loolu moom. isolé si saa si. amul loo ci négocier mooy foofu ma la wax. ñoom ñoo fa ëpp ñi fa jaar sax. avec l'aide de la gendarmerie may nuyuwaale la commandant Henri Gueye mhm. commandant de brigade bu bu bu Wakam mhm. mu ciy def liggéey bu am solo moom du Mamadou la son moom l'adjudant du Ndiaye vraiment yàlla dimbali nañu ci côté boobu mhm. ñi yore collaboration bi rafet daal neex ñi yore eh, force de l'ordre yi muy gendarmerie ñoom wax fa dëgg yàlla ñoom. Mhm. zéro faute bien que nag c'est très difficile. bien sûr metti na trop man dama leen yërëm. Mhm. dañ may yërëm man mais man dama leen <laughs> mu nekk lu am solo mais monsieur le maire bu ñu jógee ci cas yi communautaire am nga fii mais beddi compte bi ni ñuy xoolee askan wi ñi ko am. stigmatisation bi foofu ndax xam askan wi tamit jot na itam ñu bàyyi ci xel. waa kuy stigmatiser nit da nga xamul rek. Mhm. yow cas communautaire xamuloo ko xamuloo sax foo ko jëlee. yow lan nga def moo tax ñu wax toog leen seen kër askan bi ñuy stigmatiser ñoo gën a dëgër bopp te yi waru woon egg fi bu doon ko am soxla rek génn mhm. def sa soxla dem duggiwaat kon tey du ñu egg fi ñu egg ni mhm. mais man damay gis ay magu jëmma toog seen buntu kër di kàmbish am na ñoo xam ne loo wax ñu jëm ko yàq indi leneen indi leneen surtout nekk ci Facebook bi réseaux sociaux yi di la guerre tey lii xew Sénégal wala man musuma ko gis. Mhm. tey daal ku nekk kilifa rek loo wax rek ñu saagala si réseau internet yi. Mhm. yàq déformé sa man bi ma 32 cas la ñu am wakaam mhm. man may meeru dëkk bi nit yoo xam ne tekkiwuñu dara xamuñu dara. ah ngaañ am na ñu ko ngaañi sax. di ko ngaañ xamuñu dara tekkiwuñu dara. tey bu doon président lañu kii man maay président bi foofu. man maa yor dogal yëpp maa yor comme bi maay dogal foofu bu ma ne kenn du jaar fii tey def arrêté kenn du fa jaar nguur gi kan la ñuy waxal nguur gi mën na cinq cent et quelques collectivités locales hmm. nguur gi bi muy ñëw di toog waaw commune Wakaam nangam nguur par district lay wax bien sûr déggaguloo mukk ñu léegi lañ commencé sax hmm. di tudd communi yi si te si cas communautaire mais district lay wax district mooy wax ah yi hmm. ndax district yi ñoo leen di remonter ñoom les informations bien ku ku ku ku ku am. wala kuñ suspecté ñoo lay jël yóbbu. ñoom ñu testé. bu positifee ñu wax. ñoom ñu leen tax a jóg yàq xanaa. Ah, xanaa ah, mais xam nga. am na ñoo xam ne yaakaar nañ ne le maire. Mhm. bu réussir sa politique de lutte contre cette pandémie. Mhm. ñoom seen seen défaite la. te ñoom ñu ngi nekk ci ay perspective perspectives campagne sont des non patriotes ñoom au contraire sont des lâches. te yeggaguñ fa. te yeggaguñu foofu ñun ñu ñu ngi toll ci dundu doomu aadama. Mhm. am man am na ku ñëw naan ndox yi ñuy def di ko raxasu saafara lañ ci def nit yi bu leen sangu bu leen si bu leen si bu leen si raxasu saafara lañ ci def xoolal ma loolu moom doy na waar kooku ne du ma ko bàyyi parce que diggante buy wax loolu xool ni kaay explosé comme làmmeñam balaa moo si ne mhm. dafa am ñoo xam ne luñ dugg sax bu seen làmmeñ ne pàcc rek problème la problème da si am naka la ko wax rek kaay explosé mais ah, doo bàyyi noonu quand même yow tamit xanaa man ku ma xamul mhm. ku ma xamul duma ma fo a ah, santé population wakaam yi mhm. sans compter maintenant ay ministre municipaux yoo xam ni loolu dinañ ci ñëw non xam nga da dem ba yow tu te mais dans quel pays sommes fan lañ ne mhm. xeex lañu ne wala politique lañ ne soo leen toppee nga détourné wu yow si sa objectif muy nga aar population yi nga dugg ci benn polémique mu mel ni tamit population yi polémique bi moo leen neex waaye wallaay bés bu nit yi di daanu comme weñ bu boobaa bopp sa bopp lay doon. ba tax nag yow sa conseiller wala sa mairie bi génne cinq cent millions de da koy xeexee li nga xam ni moom moo jëm ci Covid 19 bi contre contrecarré ko mais ay jug ay conseillers comme ni nga ko waxee jug di ŋàññi monsieur le maire expliquer ñu processus bi nu mu demee. ba xam nga nit boo xamul xamul. et malheureusement conseillers yi. man yóbbu defal naa leen formation ba sonn pour budget xam nga budget tey journaliste sax mënu si wax bu dul journaliste bu boo xamante ne xam-xamam dafa màcc mu jëm si budget ñu ngi déglu kon nga expliquer gis nga loolu du ay caaxaan ndax réew budget ko yor entreprise budget ko yor bien sûr seen entreprise bi hmm. def nañ seen budget xayma nañ am nañu ko tuddee sax business plan maire xaar ñu jël kooku salaamaaleykum asalaamaaleykum salaamaaleykum ñu continuer maire yaa ngoon fu am solo. Mhm. ñu tuddee ko business plan mooy damay xayma. waaw amuma de. Mhm. dama jàpp lii laay am ci at mi dinaa bu ma jëlee juuti dinaa ci am nangam. Mhm. bu ma jëlee cantine yi dinaa si am nangam. bu ma jëlee service de l'urbanisme dinaa ci am nangam muy ñiy tabax war a fay. ñi occuper mbedd mi su ma ko jëlee muy OVP nangam lañu war a am. sama taksi eau nangam lay war a doon sama taxe électricité nangam lay war a doon et cetera et cetera et kii di fay juuti par bés nga multiplier ko par trente lii mu war a doon juuti bi par trente muy par mois nga multiplier ko par douze. Mhm. lii laa war a am lii laa war a am lii laa war a am loolu ngay xayma. Mhm. boo ko xaymaa nga ne nangam lay doon. Mhm. nga ne par am naa dix millions laa am mooy sam at mi laa xayma laay am. xayma mën naa ëpp nag. wala waan mën naa manqué nga ne dix millions yi ma am yoon ne la ni nga ko amee recette ni nga ko yaakaare ne nga koy amee recette noonu nga ko war a dugalee en dépense dafa war a équilibré du ëpp fifteen du manqué fifteen nga ne man dinaa jël si salaamaaleykum aleykum salaam mm, si ñu ngi lay nuyu bu baax tur bi ak foo ñuy woowee aleykum mm-hmm. bi ak foo ñuy la bu baax de tur bi ak foo ñuy woowee tur bi man Adja Khady Diatou Gueye Sow dëkk ah, Wakam. ah waaw maire maire nee na xamoon na ni yow la. da nga wax rek mag ji ma xam ne yow la. acca ah, bisimilah ñu bàyyi la. allo allo waaw acca ah, bisimilah yow la ñuy déglu. waaw man la Adja Khady Diatou Gueye Sow. Mhm. nekk euh, conseillère municipale ci commune Wakam. Mhm. Euh, yore fa commission bu ñuy wax transport et mobilité urbaine. Mhm. Euh, damay ñëw rek pour sant sama maire. Mm. Samba Bathily Diallo. Euh, ndax nit la koo nga xam ne kii ku honnête la. Mhm. nit la koo nga xam ne kii ku jàmbaare la. Mhm. nit la koo nga xam ne kii ku fonk liggéeyam la. Mhm. nit la koo nga xam ne kii aussi ku fonk population la. ndax 2002 ba 2009 nekk na fii ci boppu mairie bi. man ne kon naa fa ak moom bokkuñu parti nag. waaye dafa nit koo nga xam ne kii tey. fu wakam toll tiin nii tey mhm. wallahi mun nañu compter ne mhm. nit ñi ko toll foofu moom ci la bokk mhm. kon nag sama Samba Bathily Diallo nekk ko nga xam ne ci ah conseil municipal day wax dëgg yàlla bu ñuy voté ah bu nekkee day am abstention benn lay doon de devant le préfet devant l'autorité administrative kenn lay nekk wala ñaar ndax liggéeyam bu xare ñëpp nag dañuy saluer liggéeyam ñun conseiller ñëpp koy saluer mm-hmm. population bi aussi mm-hmm. xam nga nag nit moom loo def def rek mm-hmm. il faut mu am ñoo ñoo nga xam ne ñu la ngay def lu leen neex waaye de dinaa ci bari ay moroom jàmbarteem courage am tamit di ko sant bu baax nag di ko gërëm di ko ñaanal yàlla lii mu door yàlla na ko yàlla may ndam yu baree baree bare ndax dégg ci sa biir wax wax na bu surtout tudd sutura nit ki moom nit ku baax Mhm. jërëjëf jërëjëf may ka mhm. euh, euh, fan yu gudd ak ñu rafet nag mhm. jërëjëf sant ko gërëm ko maire lii yëpp dinañ ci ñëw ci njeextal émission mais yaa ngi woon fu am solo cinq cent millions yi dafa bëri coow waaw moom laa lay expliquer loolu mooy budget ñun wakaam yàlla moo ñu da nga xayma ne li ngay ngay am li ngay am nga ne dinaa si tabax dinaa jënd ceeb dinaa si defar fonde lu nekk nag da nga koy bind. Mhm. maa xam ne budget bi ba léegi. Mhm. nekkul xaalis di am mhm. bind la. soo ko bindee ba pare nga indil ko conseil municipal bi ñu voté ko yow maire yaay présenté au conseil municipal un budget mais c'est pas le contraire du conseil municipal moo lay présenté pour pourquoi ñu ne nañ ko yóbbu pour ñu voté ko. parce que da nga ko présenté. da ko defar ñëw présenté leen ko ku am lu ci lëndëm mu posé la question ngay tontu ba ñin ñi seen xel dal ñu doog la voté ndax. conseil conseil municipal mooy organe de délibération bi. Mhm. mais organ exécutif bi c'est le maire. c'est le maire mooy exécuter le budget. Mhm. bu dee milliard moo koy exécuté. Mhm. bu dee cent milliards moo koy exécuté. bu dee un milliard moo koy exécuté bu dee dix francs moo koy exécuté. bien sûr conseil bi bu voté ba pare day bàyyi budget bi ah maire bi moo koy exécuté. conseil bi yoon wax ne compte administratif bi bu at mi jeexee. maire bi day présenter un compte administratif mooy lii ñu ko joxoon budget bi ni mu ko utiliser te ñoom dañ war a voter compte administratif wala ñu rejeter compte administratif bi mhm. yaa ngi dégg mhm. donc noonu la mais ñun wakaam mhm. may wax ne man bi ma ñëwee wakaam waaw dama fa nekk 2002 2009 bi may dem 2009 ma bàyyi si kees si un milliard et quelque bi may dellu si en 2014 fekkuma fa dërëm ci mairie ba waaw ma fekk fa ay bor sama baat ci kaw <laughs> ay bor ñu bëri maa leen fay ay travailleurs am na ñu bëri ay fournisseur man maa leen fay te man bii may dem bàyyoolu ma kenn bor lépp euh, kenn bor laa bàyyi loolu li si kaw wax sama baat si kaw toujours ma ko te nit du mhm. may daal may wax waa Wakaam man am naa ñaari contrôle bi ma nekkee mhm. mairie Wakaam en de deux mille neuf deux mille deux en deux mille quatorze mhm. IGE contrôlé na ma ku mu dugg sa bureau nga tiit de <laughs> cour des comptes contrôlé nañ ay corps yu graw ma am ñaari contrôle interne acharnement la woon sax contre personne ok nickel kenn gisu ci dara dara mel na ni transparence moo fa jub bu loolu amoon kon dinaa di di kon kon xam nga ne samay noon duñ ma may sa jàmm. dañ naan yaa def yaa luubal li yaa luubal li <laughs> mais ñiy ngaañ ñi nag kon. waaw may ma rek ma damay leeralaat. ne mhm. dama ne deux mille deux deux mille neuf. Mhm. dama fa bàyyi un milliard et quelque. Mhm. bii may ñaat fekk ma fa may waxaat waa Wakaam ne. corps de contrôle yooyu nga xam ne foo dugal dërëm xam nañ ko. soo defee une mauvaise gestion rek dañ ko xam. contrôle nañ ma ñaari contrôle interne yoo xam ne c'était destiné à couper ma dara kon du tey laay ñëw mhm. di soxla dërëm mi man maa fekk commune wakaam amul dara maa ciy def sama xaalis ndax ku ñëw ñaan ma man maa yëkkati may la ku am soutien maa ciy def sama xaalis ndax maire yi mënoo laal xaalis yow la mhm. maire xaalis bi mu ngi trésor public buy dugg yow doo ko laal buy génn doo ko laal buy génne virement lay doon te c'est le payeur mooy di virement bi te su fekkee dafa nangu nga engagé dépense boo xam ne c'est pas régulier moom sa responsabilité elle est engagée. Mhm. amuloo fooy fooy sàccee dërëm man sama mairie ku fa sàcc ma dàq la bu luubal dërëm dàq naa la du ma yem si dàq la gendarmerie laa lay jëkk a yóbbu. mu leer mu leer nañ ba pare ma dàq la maire buy sàcc say employé dañ koy xam. ndax si ñoom nga mën a jaar sama loxo si kaw. ma sàcc dërëm mu wakaam au contraire boo ci deful maa si def sama xaalis mhm. ndax yàlla ma maa ngi sant yàlla mhm. waaw ñu ñëw li ma gën a metti sama premier collaborateur mhm. muy gujaab bi ancien syndicaliste man dama am lu ma metti c'est pas parce que nit ñëw na di ma guerre non man tàmm naa loolu je suis un naar kenn du ko wax ci goxum sow ab xeex ku ma si oo danga ma siy fekk. <laughs> da nga ciy wuyu. xam nga kaay xeex sax ma gënal kaay lekk mais kant yow nit nga teg ko foo xam ne. Mhm. bo mooy troisième adjoint mooy tukki moom laay defal délégation de de de signature. Mhm. gujaab yi moom. waaw moom laay jox intérim. Mhm. moom laa jox santé. moom laa jox éducation. moom laa jox circulation ak mobilité urbaine. commission yooyu. moom moo koy superviser suñ ma si su ma si amee lu may def moom laay wax. moo koy dox def ko ba mu pare mu indi bu indee ma doog ko jël décision. soo laajee directeur d'école yu wakaam yëpp. kuy seen maire dañ naan laa gujaab. ndax yaa ko jiital. maa ko fa jiital ku ñëw demee dem nañ ci gujaab dem nañ ci gujaab parce que ab maire bu buggee yenu lépp. Mhm, day métti après dootul efficace. Mhm. jeunesse la même chose. Mhm. jeunesse sport la même chose. santé la même chose. su ma amee dix représentation huit yi moom moo ma dem représenté ñu boole si man commune Wakaam defuma comme ñeneen ñi amuñu nañu làq dañuy def chaque quinze jours réunion de coordination mu mel ni suñ conseil des ministres ma oo mais plus lu mhm. doon ñun kese mhm. damay oo tous les services et toutes les directions mhm. pour que ñu joxe dinañ def compte rendu loolu nga xam ne loolu la ñuy liggéey bu ñu paree ma joxe ay directives seen kanam ñëpp dañuy discuter dañuy def tour de table sur toutes les questions. <laughs> waxtaanee ko. waxtaanee lépp nga xam ne yow miy toog danga nga ma ne lépp la ñu xam. bien sûr. day tax service yi aussi kenn ku nekk xam lii nekk service bële. <laughs> kenn ku nekk di gën a jéem a performant lii beneen service bële di di di di di indi critère de performance te ñëpp xam nañ ne. <laughs> maa ci rigoureux. si liggéey du ma baal kenn. s'il faut sanctionner je sanctionne à à la minute. lu ni mel moom dafa am gestion boo xam ne. leerul wala expliqué mhm. waaw ñu ne ku def loolu. Mhm. ba tey bi ñuy monter suñu commission comité de euh, euh, local. Mhm. comité local bu waka bu bu de lutte bi. moom moo mu mu ngi si biir comité bi. moom Goudia bi. mu ngi si. ma indi ko fa mu ñëw pour fekke waaw ñu monter yooyu yëpp ba pare fekk voté nañ ñun suñu. budget bu yàgg ñu ñëw ñu am excédent budgétaire <laughs> man day Sénégal laa gis nga liggéey ba am lu ëpp ba liggéey ba mu des nga am lu ëpp di ko dugal sa biir budget ay nit ñëw di la ŋàññi loolu mooy excédent budgétaire <laughs> dañ am trois cent quelque quelques mille <laughs> yoo xam ne si gestion bu passé bi la ma jot a dugal cent et quelques millions en investissement ne investissement mënul xaar ñu voté ko ci budget bi avant 31 décembre li des ma ba at mi jeex ma régler ma payer lii ma lii des si sama xaalis. Mhm. muy cent soixante et quelques millions. waa mhm. cent soixante quelques millions kenn ñaanuñu ko saraxtuwuñu ko. Mhm. ñu may ñu ko mu tombé ak Covid 19. ma jël ko tas ko la ba ma jël ko tas ko. si biir budget bi. parce que même bu du woon Covid 19 bi. excédent budgétaire dañ koy dugal ci biir budget bi. am na lu ñu waroon prévoir. ndax dama la wax lu dugg en entrée. recette da nga koy génnewaat en dépense. bien sûr noonu la ñuy defee un budget. Mhm. ma jël cent soixante et quelques yi. Mhm. tas ko. Mhm. ci biir budget bi ndax loolu la yoon wax Covid 19 wax non Covid 19 boo amee recette yu bees. da ngay def autorisation spéciale da koy dugal ci biir budget bi tey fu ma budgétiser woon cent francs par exemple man ne Sénélec dinañ jox dix million Sénélec jox ñu quinze millions cinq million de plus il faut ma def autorisation spéciale. pour man ka tas ci biir budget bi sinon du ma ko mun utiliser hmm. xaalis bi day nekk foofu toog di xaar hmm. suñu xaalis la may kenn du ko mën utiliser hmm. loolu mooy autorisation spéciale ma jël ko tasaare ko si biir budget bi waaw xanaa loolu dañ war a merci ci le maire ndax am nga excédent pendant que say moroomu maire yeneen yi amuñu ko amuñu luñ fayee seen salaire te yow def nga sa li nga war a def yëpp ci at mi moom des maa ne maa ngi yëpp vidéo dañuy toog di ma tàgga di ma monsieur le nan nga mu ce système de recouvrement ah, ya moo gën a performance Sénégal man mhm. kenn gënuma pe wakaam lu fa am xam nga ni day wax wakaam ban ban usine fa am lu fa am fu may jël xaalis dañ ko xam te est-ce que waa wakaam dañuy fay ay impôt fan laay jële xaalis j'ai trouver un budget de deux cent millions mooy yóbbu ko à un milliard trois cent mhm. critère de performance un milliard trois cent donc un milliard cent soixante et quelques milliards loolu laa wax mooy budget prévisionnel bi bu daaw bi un milliard trois cent mhm. ma am recouvrer un milliard cent et quelques millions mhm. yoo xam ne man maa ko recouvrer donc huit cent millions yoo xam ne seul ci biir commune bi laa ko recouvrer su ma bëggoon sàcc foofu laa koy sàcc balaa dugg ci kees gi ma ne ko foofu kon kon li ñuy wax amul non mais yow nga desal xaalis dugal ko ci biir budget bi loolu la yoon wax mhm. lan lan mooy problème bi desal nga xaalis daaw mu ngi ci payeur mhm. ci trésorier keesu trésor public yee naka moom commune bi nga jël ko dugal ko si ñuy wax cinq cent xam nga luy cinq cent millions mhm. dans le budget su ma xoolee lii ma mën a laal yëpp compte mhm. ni ma ko rééquilibré su ma xoolee fu nekk bu ma fa jëlee jusqu'à hauteur de cent cinq cent millions je peux faire face au Covid au Covid mais est-ce que sax cinq cent million xaalis bu teew la ndax dama la budget dafay commencer le premier mhm. janvier jeex le 30 décembre est ce que recouvrer gum naa mois d' avril bi doog a dee sax est ce que ñiy war a fay fay nañ ci contexte bi ñu toll bu dul suñ excédent est ce que mun nañ dund dina métti mais sénégalais bu la bëggee xeex day jël polémique comme dégg nañ ñu ne on peut faire face mhm. jusqu'à hauteur de cinq cent millions mhm. au covid 19 ndax réaménager nañ le budget dama jël secours aux indigents su ma bëggoon xanaa foofu la gën a yomb su ma bëggee lekk xaalisu commune bi. Mhm. nga xam ne yow bu ma boo ne boo ñëwee su ma neexee nga def demande léegi ma may la secours. Mhm. nga ñëw léegi ma may la secours. def procédure bi suba ma jox la sa kayit nga dem perception nga nga signé nga ñu jox la sa xaalis day mel ni comme chèque bu ma la jox. ma dindi cent millions ci secours aux indigents. parce que mënatuñu di def secours comme ni mu daa demee nit yi di rang fii ndax feebar bi mayul rang. Mhm. ba pare payeur si boppam. nangootul loolu ndax moom it personnel am daf ko wàññi comme ni ma wàññee sama personnel. ok télétravail la ñuy def et cetera kon kuy contrôler des milliers de mandats yooyu. may mhm. ah rang boobuy nekk foofu. Mhm. donc ñu dindi cent millions. Mhm. cent millions yi ñu dugal ko si fu mel ni compte pandémie yi. est-ce que yaa ngi. yu ne ay calamité ah, ay. prévoir ñu woon assez de détergent de produits de désinfection. te jënd ngeen ci ah, yu bari yu bëri yooyu yëpp. nga jël ko jënd yëpp teg waaw man ma am cent cinquante mille habitants may nuyuwaale sama collègue maire hmm. Barthélemy Diaz kii naa même pas cinquante mille habitants okay. man ma yor village <laughs> moom yoru village moom tey bu ñu ne ñëwoon confiné hmm. ñëpp mën nañ dugg seen biir mën na leen mën na leen confiné mën na confiné ñëpp dugal ñëpp seen biir appartement yi uh-huh. wala seen biir euh, euh, village yi ñu hmm. toog fa dèjà sama mbokku séeréer yi rek bu ma leen bëgg a dugal fu ma leen di dugal <laughs> ndax ñu ngi taxawaaloo rek si dëkk bi. day na waar ah benn séeréer benn nekk di di séeréer. Euh. fan nga leen di confiné. ah man est ce que man maax moom war nañu bokk stratégie de lutte. déedéet yemu leen mais quand une personne di ñëw naa. Barthélemy Dias def ñun dèjà. Mhm. lu Barthélemy Dias jënd si ceeb ñun ñoo war a jënd triple ndax li ngeen yor. ndax li ñu yor ñoo ëpp a mbooloo fuuf. <laughs> ëpp que ay difficulté fuuf. <laughs> moom ay quartier assaini la am ñun amuñu ay quartier assaini village moom ay quartier ay tali la mhm. ñun ay ay brouette la ñu pousse pour dugg suñu biir suñu biir village mhm. mais c'est la réalité mhm. ndax man ci biir village bi laa juddoo njaayeen laa juddoo ci village ghetto ci laa juddoo j'ai pas honte de le dire bien c' est ma fierté au contraire. Mm-hmm. parce que ça m'a donné des valeurs. Mm-hmm. valeurs yoo xam ne doo fen. Mm-hmm. doo sàcc ndax rus nga ko. dangay ngay rus rus loo sa da ngay rus ñu ne doomu diw. moo def li nga def nii. mais monsieur le maire lu waral kon ñagas ñagas bi. entre conseil voilà xam nga boo buggee xam nga Goudiaby bi problème ba bëgg na nekk leaderu Pastef à te mënu mënu ko wala. non man bokkuma Pastef ñoom ñoo xam. bëgg na couper le cordon entre nous deux. Mhm. mais ni ñëw ne ma monsieur le maire kat man xam nga maay leaderu Pastef. Mhm. et je veux vraiment ma. imposer mais m'imposer. Mhm. là y aura pas de problème parce que. man jàppale naa président Macky Sall pour te dire. moom mu dem jàppale ji Pastef terewul ma continuer liggéey ak moom. présidentiel président Macky Sall laa jàppale. législative bi président Macky laa jàppale. bien que aw ma parti sama parti Wakaam. ma benn parti. ok. waaw bokk bokk mosoo bokk taxaw Dakar. man suma ma bokk taxawu Dakar. Mhm. man. Mhm. maa gagné seulement commune. ok waaw léegi quest nga ñëw nga nga nga manigancé dem ci ay conseillers naa la waaw maire bi ni mu defee conseil municipal baaw conseil municipal ba def nañu ko ba sous-préfet approuvé ko nga xam ko. Mhm. yow donc durant toutes ces années là. toutes ces années amuloo loo ŋàññe maire bi. nga toog ba benn ba ñu toll ci Covid 19 bi. Uh-huh. nga ñëw dugg ci kii waaw si ñenn nga xam ne si ñenn leen ma dama bëgg maire recevoir ñu lu mu gën a gaaw <laughs> ñooñu signé muy treize signature ñoo xam ne déjà ñu ngi signé waat di wax ni ñoom bokku ñu si loolu. et même bu doon treize personnes yu d'accordul uh-huh. mais dans une règle de démocratie sur soixante six conseillers uh-huh. qu'est-ce que treize conseillers même conseillers bu ñu waxee du fi am day day tere mu am même trente deux conseil bu waxee du am 32 34 conseillers voté oui di tey jàll. Mhm. à 33 33 la voix du maire elle est prépondérante. Mhm. bu 33 waxee ne du am. 33 mhm. wax day am te ma bokk ci 33 yi wax day am. day am ndax c'est la voix du maire qui est prépondérante. en cas d'égalité de voix. waaw léegi lan mooy problème bi lan man de loolu moo ma jaaxal maintenant. ñuy wax naan dafa am. un décalage de dix-huit millions pour te dire critère de transparence dama ñëw fekk un fonds de cliché laa garat boo Clichy ak équipe sortante bi c' était cent et quelques millions si je ne me trompe ñoo leen ko joxoon ñu ne dañ koy def dans un compte spécial mu nekk dans un compte bancaire man ma ñëw ma ne du laal lu nekk compte bancaire ñu laal ko ba mu des dix sept millions ma ne man du ma jël lu nekk compte bancaire lépp lu may jël. Mhm. day bokk si day day day figurer ci biir budget bi. Mhm. mais dama fekk ñu doon exécuter loolu. bien sûr et c' était la perception moo ko doon exécuter ak la commune. sans ñu koy dugal dans le budget donc ça pose problème tiraillement dafay dugg ci budget bi du dugg ci bi ma ne tant que duggul ci budget bi ñun duñ ko laal que dama bëgg mu am traçabilité critère de performance pour ci transparence mais lu ma gënoon a yombal su ma ko bëggee lekk ñaata at maa bàyyi foofu defe naa ñu ngi suñ septième année ma ne du ma ko laal tant que dugaluñu ko ci biir budget bi ñuy bañ a tombé d'accord ba tey ñu tombé d'accord ne nañ ko dugal ci budget bi donc loolu excédent la aussi fu muy dugg dafa laax lu xaalis boo prévoirul woon hmm. di ko dugal ci budget bi loolu lu mu tudd du mu ngi tudd autorisation spéciale bien sûr nga ñëw ñu dugalaale ko si entre léegi hmm. bii may lancé convocation yi ah bii ñuy d'accord loolu ñu koy dugal hmm. dafa am décalage lancé naa convocation yi jox naa leen document te ñëppay jot ñëppay jot dinaa si dellu si ñëppay jot. Mhm. jox leen ñuy ñëw. Mhm. loolu dugg waa xaalis buy dugg si maire yi. Mhm. ab maire bu bañ ne du jël lu nekk si du jële càmmeñ di joor lay jële daf koy def si budget bi. waa xanaa loolu dañu war a tàccu. di yaa ngi ut xaalis di dugal. di ngaa léegi man fii laa gis Sénégal yow nga ut xaalis di dugal si biir sa kees. ñu lay ŋàññ wax fa dëgg yàlla loolu <laughs> c'est la première fois c'est le monde à mm-hmm. l'envers tu mais de l'argent dans la dans la mm-hmm. ngay ut xaalis mm-hmm. mel ni état du Sénégal dem uti ji xaalis boo xam ne du bor du dara ñëw dugal ko si kees bi mu ñëw dugal ko ñu ne waaw day sàcc xaalis bi dafa sàcc xaalis yow yaa uti xaalis mais est-ce que monsieur monsieur le maire gisoo ñi lay ŋàññi yëpp tey fauteuil bi nga toog moom lañ ah, xool te itam am na sa première adjointe moom génn na nee nañ sax moom duy jot sax ay convocation yow nga booy woote lay def laa wax mag du fen ñoo toog ñun wakaam loolu benn commune amu ko Sénégal mhm. da jox léeg-léeg convocation nga ñëw nit këram doo ko fa fekk mhm. surtout moom moomu ngay wax am na kër yoo xamante ne jinax sax du fa dugg. garaaw jinax sax dugg duñ dugg seen kër yi jinax muus du fa romb waaw ñuy ñëw ñu ne nañ jox ku nekk pour ñu bañ a am ay problème kii jot na kii jotul. Mhm. ñu ñëw conseil municipal da dañuy fàtte ne le conseil le conseil est souverain. Mhm. ne d'accord nañu. maire jëndal ñu ay tablette boobu tablette melul comme léegi <laughs> xam ne tablette léegi sax kiwul jëndal ñu ay tablette mhm. ñu nga defal ñu si ay ma ne dinaa jënd tablet yi dinaa si def ay puce bu mel ni seen fii mhm. ñu jox ku nekk tablet mhm. jox ku nekk puce ibbil ku nekk boîte mail weer wu nekk ñu defal la si vingt mille francs crédit les conseils de Wakam sont gâtés <laughs> vingt mille francs crédit ne léegi documents yi nous sommes dans un monde digital maintenant un monde numérique. bien sûr la documentation doit être digitale. Hmm. nga xamante ne yow boo mënatoo réeral sa kayit. Hmm. sa boîte da ngay ibbi boo bëggee tiire nga dem tiire ji soo bëggul tiire nga bàyyi ko. saa yu ñëwee nga consulter ko. Hmm. ba man su ma paree budget. wala document rek à la minute secrétaire bi danañ ko yónnee léeg-léeg balaa moo dugg sama bureau danañ ko yónnee su ma defee correction yi bañ ne waa baax na mën nañ tiire rek dama kay boo tiiree ba pare envoyé conseil yi. ku nekk jot sa documentation ñëppay jot ñëpp maa jënd yëpp ko ñu ñu tablette yi moom ñu ko de mairie bee ko moom nañu ko xam te dañ koy delloo nañ xam ne dam bàyyi rek noonu ne xam ne tablette yi moom ñu ko conseil bee ko moom sama yëpp adjoint oto yu bees tax laa leen jënd ku nekk ku nekk oto guddaa bi boobu bu wax mu ngi sànq suñu oto xam fu mu dugal suñu oto fu mu ko dugal neen dafa accidenté fa la accidenté ana kayit lu ëpp un an maa ngi topp ana oto bi ana oto gis nga nit booy dig cangaay da ngay te nag. wax naa naar kenn du ko aw si guuxum soow. <laughs> daf la ci wo yenn yi baaxul. koo xam ne collaborateur nga soo waree ñëw ñëwal ne moom monsieur le maire. <laughs> j'ai pas compris ceci. <laughs> voilà réunion de coordination. nga bu ñëwee réunion de coordination. nga nga poser les problèmes. mais ñëw di wër nit yi pour yàq deru nit ay jullit lañ. ñu ngi si weeru koor boole si. nañu xool ne lu ñuy wax fii. yàlla moo wax boo tegee si deru nit dara. Mm. fekk du dëgg keneen ku ko wax yaa gàddu bàkkaar yow mal xayaam dinañ dem nit nga gis que mu yore montagne yi bàkkaar yow nga yor montagne yu yiw yàllaa ko wax ngay ree defe ne yow kat kii dugg na yow sauvé nga nga dem fekk moom mooy dugg àjjana mooy mujj montagne yiw yow montagne yu bàkkaar ndax yeneen li ngeen ko doon ŋàññi di ko waxal lu amul te mu joge ci yow yow moomu am montagne yiw boobu da jël say montagne yiw yooyu di ko ko jox moom moom mu lay sëf ay montagnes yi mhm. bàkkaar parce que yooyu baaxul fen baaxul nit day wax dëgg mhm. man Samba Bathily Diallo du duma fen mhm. su ma naree fen ma dee ndax dama naxari dara duma jël alalu jàmbur soxlaaw ma ñaar yooyu dinaa xeex dinaa saaga dinaa xuloo du ma daw duma dellu ginnaaw moo tax duma tooñ nit man du tooñ nit du ma fen wakaam demal dinañ la wax lépp ba mu des maire bi day fen <laughs> wala lu ah bu parce que bu ma ko namul dama naa <laughs> dégg naa ko de <laughs> su ma ne la waaw sama kàddu romb na mhm. dama koy def moo tax du ma gaa wax kenn waaw mhm. moo tax dañ accusement accusé la mais est-ce que tam monsieur le maire tey fu euh, période bi toll fu mbas mi toll gënul woon ñëpp boole seen doole xàccandoo di dóorandoo mais bu wax léegi waaw divergence bu ci amee rek yaa ko wax mhm. sa place ku sa am na ñoo xam ne yaakaar nañ wax naa la ko fii ne man bu ma réussir ñoom ils sont foutus. échec lay doon ci ñoom échec lay doon ma leen di fàttali man bi man dama nekkoon maire jóge fi bi ma fi jógee dama gëm yàlla kenn dëggul diggante boobu ma yëkkati teg bi élection jotee ma fagaruwaat. ñëw gañe ku ko def Sénégal. man maire yi dootul sama salaan toogax dem laa yemale. Mhm. sama yoon nekkul si bi kon tey lan la. sama salaan si mooy réussir sama mission. amuma beneen challenge. Mhm. mooy wakaam waaye ils m'ont tout donné. man amuma lu ma war a man mënatuma fay wakaam maa ameel wakaam bor man nekk naa maire j'étais le plus jeune maire du Sénégal. 2002 mhm. 96 lañ ma njëkk a fal conseil municipal mooy bii maire yi njëkkee am wakaam man ci conseil yi laa bokk ñuy 33 conseils maa yor pré commission jeunesse et sport. Mhm. Biram Ndiaye nekk maire. ñu dem en 2002. deux mille mandats yi jëkki teg fi délégation spéciale deux mille deux ñu ñëw ma nekk maire Wakaam j'étais le plus jeune maire du Sénégal. Mm-hmm. à l'époque à l'époque en deux mille sept ma nekk député bu onzième législature ba deux mille douze. parcours bu am solo la quand ma ñëw deux mille quatorze jëlaat mair yi Wakaam tey ju suis maire je suis au conseil lépp lu ma am si barke Wakaam laa ko amee la ma lan laa desal Wakaam. Mm-hmm. dinaa ñëw sàcc xaalis waka lan laa koy man ku doylu laa ndax bu ma amee fonde lekk bu ma amee ruy naan ku doylu laa maa ngi juddoo njaayeen laa la si barak yi doon def tànki neen di dox wax njaayeen ak géej di jënd ay plastique di jël paaka di ko suudee bu daggee di bëgg a big du ma am big xam sama bopp nag du loolu moo ma er-, problème les problèmes matériels du monde ne m'ébranle pas <laughs> may taalibe sëriñ Touba. du yii lay fëkk quoi. du loolu moo may fëkk. <laughs> buñ ne kuy sukk di raam. <laughs> du loolu moo lay fëkk du ma rey ku rëy dem safara. damay sukk raam jëm sama sëriñ jox ko sama loxo si jóot kon du lii moo may tiital man bàyyi fàllaa am na solo gis nañ ko ci yow itam euh, monsieur le maire tey euh, ñaari minutes moo ñu desee monsieur le maire tey euh, ñu ngi ci xeex bi yéen a ngi ci ba tey tey kàddu gu mujj gi tey lan la li ngay woo waa Wakaam tey lan la. waaw c'est su sa émission bi dafa gàtt. waaw xam nga xam nga. <laughs> vraiment c'est très parce que tu m'as donné au moins. <laughs> Mhm. le temps moo gën am solo parce que lu bëri dafa lëncoon. xam nga tu m'as mhm. donné le mhm. ma leen wax mooy. Mhm. bul xeeb tàkk tàkk ba mu lakk sa caaya. les cas sont réels suñu dof dof loo ba mu dugg fi ça va faire beaucoup plus de ravage que. liñ ko foogee. si dëkk yu bëri. et ça nee naa leen dafa mel ni ñun dañu teg stratégie virus bi teg stratégie. Mhm. bu njëkkoon. si quartier aisés yi la ne woon tey dugg na. ci biir te dafa mel ni daa fu nekk mu teg fa pion. Mhm. di progresser mel ni ku ñuy kepp. Eh, dinaa leen defal cartographie bi bugguma ko woon mais buñ moytul falaa jëm quartier parce que nag il faut que peut-être que ñenn ñi leerul gëmuñu ko nee ne xamuñu fan la suñu kal mhm. boo moytul su ma laajee autorité yu Sénégal ba ñu nangu ne loolu du yàqalaat communication mm-hmm. bi ñu teg ñoom parce que nguur tëg moo ñu yilif waaw su fekkee te ne d'accord nañ ma joxe les cas par quartier mm-hmm. je ferai les cas par quartier sauf du ma joxe tur te du wax tamit ci quartier bi fii la duma joxe tur du joxe wax fii du ma joxe indication itam parce que duma ko def wax nga ko la stigmatisation bien may ñaan mm-hmm. ñu gëm loolu ñu jàppale ñu si xeex bi may oo ay yi di la derbi yi ñu doon def ñu ne sumpa gi jàkkaarloo guy derbi la nañ def léegi derbi bi muy sumpa gi jàkkaarloo am na ba tey waaye dans les mesure de de barrière mooy sumpa gi du ma gën a ëpp dispositif de lavage sumpa gi du ma ëppale ay masque ndax maa ngi félicité waale foofu waa sump gi gis naa ñu defaral seen bopp ay masque def si effigie sump gi donc jàkkaarloo derbi baa ngoogu fayu leen foofu defar leen ay masque ngeen def si effigie jàkkaarloo mhm. waaw juboo euh, euh, cité avion mhm. dër bi la ku nekk na defaral boppam ay masque gis naa ne waa waa waa waa waa waa waa waa juboo ma leen ni remercier waale aussi mhm. ñoom gurdu vingt cinq litres yi xaaruñu ma buntu bu nekk dañ ko def pour dispositif de lavage des gis naa ne boobu it avion fayu na waaye fayunte leen si masque yi fayunte leen si si si maanaam askan bi ñu ngi. commencé euh, waaw nga ñu rivaliser. Mm-hmm. ni ñu doon rivaliser si football nañ ko rivaliser maintenant. Mm-hmm. si jël feebar bi en main muy sensibilisation muy dispositif de lavage yi muy masque yi muy lépp loolu laa bëgg ASC yi ñu jël ko. adopté ko adopté feebar bi mel ni léegi tey lii mooy championnat mm-hmm. nawetaan bi. ku gën a. comme dara waaw <laughs> ku gën a performant. Uh-huh. yow yaa jël coupe bi noonu lañ ko war a war a defee mhm. pour que mu mu mu ñu gagné ko il mhm. faut tenir le taureau par ses cornes mhm. may sant waa réew mi FM yëpp ah. jërëjëf ñaan yàlla seen réew mi FM yaar na wër réew mi yëpp ba wër àdduna amiin di ñaan yàlla sama wakaam gële fa laay jëkkee yàlla defal ñu sutura ba jële fi mbas mi mbas mi waaw lu yàlla dindi fi mbas bi àdduna bi yëpp yàlla dimni fi mm-hmm. mbas bi fay ko comme ndox nu muy fayee mm-hmm. safara ndax bu benn dëkk rek desee benn cas mm-hmm. le monde n'est pas en sécurité bien ba nga xamante ne yàlla def ñuy dimbali ñu denc ndax mënoon nañu wax tey rien que rek mbas mi économiquement lan la ñu nan la ñu def. te souvent dañ koy fàtte. Mhm. ma leen di gërëmaat di jërëjëf sant ko gërëm ko gërëm faatu Thiam Ngom kan ci coordination bi di leen jox dig daje ba dimanche ak beneen invité incha allah rabbi